fils tati kora Bombardier bu dee da yaakaar ne góoroo góor yaa ëpp doole nax nga sa bopp maa la ëpp doole maa la mën boo xeexee mu duma la boobu dama dal la allahu ak allahu